dina fi jeex tàkk. moom nee na na sénégalais yépp dalal seen xel ngir gën a mën a dimbali autorité sanitaire yi ñu gën a mën a def seen liggéey ni mu waree. coronavirus du lenn lu dul mbiru yàlla. xanaa rek ñu fàttali askan wi. bu ñu fàtte benn yoon mesure de sécurité sanitaire yi ministère de la santé digle ngir gën a mën a xeex coronavirus.